dalen ak jàmm mbokk internet yi seen football TV nuy naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo pour ñi nga xamante ne dañoo bes chaîne maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu dugal ngeen moom ko seetaan bu leen fàtte tamit un vidéo c'est très important mbokk yi tey match Europa League je pense que sénégalais yu bëri dem nañ seetaan parce que euh, li ko waral mooy match Villarreal contre Marseille wala Marseille Villarreal Vélodrome lañu ko joué euh, ay sénégalais dañ doon titulaire que ça soit Iliman Ndiaye que ça soit Ismaël Sarr dañ doon xool ndax dinañ confirmer prestation yi ñu mujjee def euh, fan yi que ça soit Shakhtar le fait de de de gagné donc seen Montpellier donc au clairement tay ñu war am ben match bu gëna tang Villarreal tok xamu ñaati match de kan amul amul défaite du coup ben match bu intéressé Sénégalais yi la suñu ñaari gaynde yëpp titulaire nak donc Pape Gueye bokul parce que qui di toujours bu muy def liste bi boole ko woon liste bi du coup mënu won sax tok ci banc bi il est pas convoqué mal ce qui est malheureux maintenant bon liñ ñu wax match bi match nu entamé match bi gis c'est respecté à la ligne xam nga donc da ngay gis joueurs yi positionné dans le terrain que ça soit le trio en attaque entre euh, Ismaël Sarr Iliman et Aubameyang donc da ngay gis Aubameyang tout le temps Iliman Ndiaye day nekk ci ginnaaw comme faux neuf da ngay gis aussi tamit donc arrive comme parfois tantôt numéro 10 tantôt da nga fay gis Iliman Ndiaye mu mu di yor bal yi et même Ismaïla Sa qui a fait un très bon match bi xam doon jappalé cloche non seulement ani na penalty mais euh, dans le match il est complet bi bo mour bi mu occasion bu moonu am non bu ko dugaloon tey ji kenn waxatu ko donc match bu complet la def Iliman Ndiaye c'est pas aussi fantastique match am bi mu def contre euh, Montpellier mais c'est un match bu xamante que ça les euh, il a respecté les consignes amono ben occasion ça pour dugal les respecté parce que non, gis ne doon le pressing bu kawe ça permettait tout le temps à ah, Aubameyang d'avoir de l'espace et Aubameyang qui a fait un très bon match deux buts penalty avec benn but magnifique pour permettre permettre jamono bi mooy le meilleur buteur histoire Europa League donc rien à dire au niveau de la défense balédi et même on fait le taf Koulos et Merlin milieu terrain Veretout bi double but à côté de ça Kondek Bia non sénégalais ça va nice rien à dire on monte en puissance et c'est bien pour la suite la confiance mon fils, et même pour le match retour déjà qu'on fait un nga bien 4-0 voilà, tu, tu man, rassurer ses supporters que nous avons fait du 5. Si tu gères bien le match, au moins de retour, tu es qualifié en quart de finale, tu es qualifié. Et c'était pas, c'était pas évident parce que Marseille, bien, maintenant, Brighton, moko, moko, moko, moko, toglo, bon, me disait, ay pas toglo, ça, moko, yobu barrage, bon, dék disait, secta. Nous, na nous, laminé tay tay roma nous, le nous, nous, pour nous, nous, parfois voilà football du du wax du wax donc peut-être que yone bi la ñu et que mën même si compétition si sera hyper compliqué il y a Liverpool il y a le Milan il y a tout ça c'est des grands top meilleures équipes que Marseille mais sur sur deux matchs lu nek mën na xew et la confiance bi Marseille yor que ça soit nous deux Sénégalais ak et coéquipiers je espère, espérer pourquoi pas rêver de quelque chose on ne sait pas le mooy a dans l'avenir mais au moins rêver am ay objectifs d'ici la fin de saison donc le monde est match fantastique si vous wax leen ma si seen xalaat ak seen gis